coowal luubal moo am fële ca ICS ci diggante njiit yi ak liggéeykat ya fa nekkoon depuis 1983 coow li na mu tëddee moo di waa ECFI ñoo doon jaay seen ay action par droit de préemption nag moo tax ba personnel bi boole woon daal di jënd yooyu la action ci bésu 26 février 2003 gannaaw gi ay at ci kanam ñoom mënuñu fexe ba am dara lu leen leer ci mbir mi moo waral ci atum 2015 ñu taxawal ab kuréel duppee ko association des emplois ex employés et actionnaires des ICS ngir jàmmarloog waa ba ñu jox leen seen droit Ndiogou Wack fa moo yore seen kàddu di ci indi ay leeral. Euh, gannaaw bi ñu sante sunu borom daal leen gërëm yéen ndax da ñu may benn tribune boo xamee ne. Euh, daf ñu permettre ñu mën a euh, indi sunu mbébét ñu dégg ko ngir itam ñu jàppale nuti ah, mu leer ci boppu nit ñi maa ngi euh, dugg ICS 1983 nekk chef service généraux daanaka mën naa ne cordon inauguration bi ñu doon dagg 84 ak Abdou Diouf ciseaux maa ko jënd ñu nekk fa yàlla dogal ICS di société boo xamee ne dafay defar engrais dafay defar acide phosphorique dafay defar euh, acide sulfurique ba pare doon société boo xamee ne dafa am filiale commerciale bu ñuy wax seen Senchim am filiale ferroviaire bu ñuy wax Cefix di euh, loo xamee ne lu amoon maanaala la ci euh, dëkk bi ndax ñu bëri dañ ci bokkoon ci actionnaires yi dañ ciy jàpp rek ne banque yi fi ne woon yëpp actionnaire la woon état Sénégal actionnaire la woon Côte d'Ivoire actionnaire la woon nigeria actionnaire la woon Cameroun actionnaire la woon ak Inde France ak Japon ñoo ñëpp ci lañ bokkoon pour wane ne société bu am maanaa bu rëy boo xamee ne euh, dem na ba dañ doon wax ne mooy première societé exportatrice du Sénégal parce que volume exportation am macha allah dina doon indi lu mal ne 32 milliards ci. chiffre d'affaires ci ci ci vente valeur ajoutée alors société boobu nag lañ nekk yàlla di dogal ba euh, deux mille deux mais balaa deux mille deux dafa amoon kenn koo xamee ne ci actionnaire yi ñuy wax SFI société financière internationale ci actionnaire yi la bokkoon ba pare nekk bailleur de fonds parce que mi ngi bokk ci groupe bu ay euh, banque mondiale ak yooyu mais SFI dafa nekk ci société bi bokk ci premier actionnaire yi nga xam ne dañoo bokkoon ci SIES SIES mooy is société industrielle des engrais du Sénégal moom daf daan defar engrais ICS e dafa ñëw fusionné moom bi mu fusionné moom ñu nekk nag benn entité boo xamee ne macha allah ñun ñoo doon defar engrais Sénégal di ko jaay extérieur di jaay aussi acide phosphorique acide phosphorique na Inde lañ koy jaay. mais SFI bi ñuy demee ba nga xamee ne seetlu nañ ne ñoom yëf yi lebal bi ñu lebaloon fay nañ leen bor bi société bi intéressé tu leen ñu ne dañuy jaay seen action action yi 32 763 la woon ñu daal di bind ci jamonoom Pierre Babacar Kama moom moo sos société bi daanaka ba ci jamono boobu ñu wax ko ne ko ñoom SFI dañuy jaay seen action léegi ñu daal dox diggante bi ba personnel bi la ne moom la bëgg ñu jënd action yi ci biir loolu euh, SFI ne moom kat li muy jaayee douze mille neuf cent lay jaaye benn action mooy valeur u 30 septembre 1999 société bi nga xamee ne dafa bëggoon personnel bi jënd ko ne ñoom fokk ñu def ñaari mbir mooy benn fokk ñu fexe ñu wàññil ñu ko parce que personnel bi lañ koy jaay te personnel bi euh, personnel bi salaire lañ yor ensuite société buy jaay action actionnaires yi ñoo prioritaire li ñuy wax de droit préférentiel de souscription moom la ñu am ba nga xamee ne keneen kuy jaambur mënuloo jënd action tant que ñoom bëgg nañoo jënd kon suñu direction négocier ak SFI pendant deux ans ñu nangu jaay ñu action yi cinq mille francs ñu nangu jaay ñu ko parce que tous les autres actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription ñaari conditions yi moo tax personnel bi war ko mën a jënd léegi ci biir loolu euh, mi ngi am accord baa ngi am euh, juillet 2002 juillet 2002 ci lañ nangu ñu jaay personnel bi action si SFI à cinq mille francs léegi ci biir loolu ñu dem société bi daal defar benn note note de session indiqué ci les modalités de vente bi mu ko indiqué personnel bi daal di ñëw jënd ni modalités yi indiqué ñii dañoo amoon benn espèce groupement bu ñuy wax groupement d'épargne et de crédit ñoom foofu lañ jaar ñu jëndal leen jigéen ñi dañu amoon amicale des femmes des industries chimiques du Sénégal ñu koy affix jaaree foofu

pour convoquer ñu assemblée général pour jox ñu les informations de gestion walla sax pour ne ñu am nañ droit ci souscription à toute augmentation de capital loolu di dem ba daanaka 2015 euh, 2015 nag la ñuy jóg c'est-à-dire créer benn association bi ñu créé association bi tuddee ko association des employés et ex employés des actionnaires ICS ci la ñu def benn sommation lettre sommation ICS pour mu wax ñu sunu situation action amul suite tontu ñu daal di créer benn pool d'avocat boo xamee ne maître Massokhna kan mooy chef de pool bi ñu waxee ak ñoom wan leen suñu dossier ak kii yëpp ñoom itam seen xarañte def ba ñu door a xam nag ne ñun ndekete société bi en 2008 annulé la action yi lu nu wax mooy société bi ba mu jógee ci loxo kamandem si yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana moom ak mbooloo mu néew jullit yëpp ñu jox ko ku ñuy wax Jibril Ngom diggante deux mille ak deux mille quatre société bi perte na lu mat quatre-vingt-dix milliards diggante deux mille quatre ak deux mille huit deux mille sept fin deux mille sept société bi perte na cent quarante et un milliards alors que bi ko kama yore quatre-vingt-dix-neuf société baa ngi def vingt milliards de bénéfice initier benn projet de doublement de ces installations pour yokk production jëlee ko trois cent trente mille tonnes acide phosphorique yóbbu ko six cent soixante mille tonnes bu ko defee li ñuy wax naan économie d'échelle moom lay def pour société bi gën a euh, stable mun a gën a vivre sans risque ay fayit yooyu ci condition yooyu lañ ko dindee ci kama jox ko Jibril Ngom mu perte ñu jox ko Ousmane Ndiaye mu perte ba ñu eggee nag ba mille 2008 ñu ne léegi dañuy suqali boîte bi ñu da organiser benn société benn assemblée générale extraordinaire ci assemblée bi lañ décidé ne puisque perte yi 141 milliards la capital bi 130 milliards ñoom ñu ne léegi dañu annuler capital bi su ko defee ñu annuler actionnariat bi ba pare. ne léegi réservé nañ augmentation bi benn consortium bu ñuy wax IFCO intégralement pourquoi problème bari foofu mooy ci annulation bi ci seen procès verbalu pro kii assemblée générale extraordinaire bi dañ ne tous les actionnaires ont individuellement renoncé à leur droit préférentiel de souscription à toute augmentation de capital man mi wax a yéen actionnaire la en principe parce que ñoom jaay nañ action ci note de vente ma jënd ko maa ngee ak firnde li ma ko jënde ñu ne j'ai renoncé te ma suma renoncé kon ci yoon ñoom ñoo war a prouver que ne renoncé naa loolu amu ci léegi donc bi ñu amee information nekk ñoom annulé nañ kii bi ba ñu dem dañoo dugal en justice pour wane ne que dañuy recom euh, recapitaliser ak yooyu yëpp suqali dëgg la yoon la. mais ñun suñu problème mooy nañ ñu considérer comme actionnaire ñu dem tribunal tribunal ne ah reconnaître ñu comme actionnaire ndax ñoom dañoo jàpp ne am na benn kuréel bu nu tuddee G6 pour ñoom ñooñu ñooy actionnaire représentant le personnel te ñun non seulement bokkuñ ci mais ñoom joxuñu mandat pour ñu poursuivre ICS donc nee nañu suñu action c'est irrecevable alors nii lañ ci yem alors muy loo xamee ne nag yéem nañu trop parce que <laughs> comme ni ma leen ko expliquer ñoom ñoo ne dañuy jaay note de vente bi am nañ ko mhm. mën naa ko yore fi génne ko man mii di wax ak yéen dama jënd mi ngi ko retiré suma salaire maa ngi egg kii bi session d'action rubrique 599 ci rubrique hmm? ñu ne duma actionnaire léegi yow deux mille cinquante sept. ay actionnaires. ñi jënd personnel actionnaire bi. deux mille cinquante sept lañ sur un personnel effectif global de deux mille soixante douze. ça veut dire que quatre vingt dix neuf pour cent du personnel dañoo jënd action. d' accord euh, ci nombre. mais pas ci valeur. valeur bi yéen a toll parce que valeur bi. Euh, en fait mi ngi nekk hmm, bi ñu ko jëndee à cinq mille francs cent soixante trois millions cent quinze mille mais société anonyme loi moo imposé ne action lu mu tuuti tuuti dix mille lay jar de sorte que nombre d' yooyu c'est-à-dire trente deux mille sept cent soixante soixante yi da nga koy valoriser à dix mille francs muy valeur nominale. mais aussi dañ koy valoriser au coût de l'action comme action dafa mel ne euh, valeur boursière dès lors mën na sa ëpp dix mille francs mais mën nañ jàpp ne lu mu néew néew néew action yi ñu jënd c'est au moins évaluer à trois cent vingt-sept millions ah trois cent mille francs waaw parce que dañ njëkk dem ci yoon comme ni ma la ko waxee yoon ne suñu action suñu action bi ñu mënee en justice c'est irrecevable ñu ne leen lu tax ñoom ci niñ ko expliqué ñu ne ñun duñu actionnaire. Ah, waaw waaw parce que comme ni ma la ko waxee maa ngi sama bulletin salaire. léegi ñu nee nañu euh, euh, benn euh, groupement bu ñuy wax groupement d'épargne et de crédit. des ICS ñoom ñooy actionnaire. xanaa ñoom ñoo xaalis. man kenn lebaluma xaalis man sama salaire lañ ko coupé <laughs> am na ñoo xamee. ñeneen dañ fay kontaan cash. ki ñuy dem ci groupe boobu seen xaalis lañ ko jëndee parce que ñoom groupement boobu day recueillir seen ay xaalis di leen jëndal ay terrain ak yooyu. léegi ñun ñoo def benn sommation interparti président bi mu ne ñu kenn mësu ko mandaté pour mu représenter le personnel. donc mosul représenté personnel mosul jënd action pour groupement bi daf ko jënd pour les membres du groupement. waaw parce que am na ñu bëri ñu dañ am liste tous les acquéreurs nombre d' actions yi ak mode de paiement bi yooyu yëpp produire nañ ko tribunal ñii ñu wan ne. groupement personnel groupement bi du actionnaire groupement bi comme ni ma la ko waxee. Mhm. dafa mel ni rek amicale des femmes. Mhm. ñoom dañuy def ay cotisation ci biir loolu la membre bi naan jëndal ma. Mhm. donc bu jëndee du amicale bi moo jënd. membre groupement bi loolu la. joxe identité boo xam bokkul ak moom moom du actionnaire mais dafa présenté wu ni actionnaire la foofu ba pare tamit léegi lan moo mu présenté wu devant le naa ni moom actionnaire la te ñeneen ñi waa ICS en personne ñoom euh, démentiruñ loolu wala nga jàpp ne dañoo ñoom ñaar ñoo lëkkaloo ICS ak groupement bi dañoo lëkkaloo teg leen di parce que groupement bi effectivement ICS a ko créé mm-hmm. pourquoi parce que groupement bi dans un premier temps. Mm-hmm. personnel bi ñoo ne dañu soxla def benn groupement d'épargne et de crédit bu ñuy jëfandikoo bu nu soxla jënd terrain bu jëndee yenn investissement yi pour ñoom bi ñu demee ba war a jënd action yi ci société financière internationale foofu la société bi xalaat ne mën nañ utiliser groupement bi comme ça bu jëndee ah euh, mu mel ne ñoom ñoo ñu jëndal. mais euh, loolu dafay fekk ne ñun ñu d'accord ci ensuite man bokkuma ci or membres yi groupement boobu neuf cent soixante lañ sur deux mille soixante sept donc xam nga ñooñu mënuñu représenter le personnel ils sont près trente cinq pour cent ensuite ñu soppali turu groupement bi parce que tant que mi ngi tudd groupement d'épargne et de crédit amuñ ci seen objet faculté def investissement donc mënuñ jënd action jënd action investissement la lu ñu def mooy dem soppali turu groupement bi defal leen statut yokk ci investissement tuddee ko groupement d'épargne de crédit et d'investissement. d'accord. léegi ba pare jeexul léegi ñu signéloo leen benn accord de session entre ñoom ak société financière internationale. bu ñu paree ci loolu ñu ne ñun duñu actionnaire. léegi nag li ma bëgg comprendre mooy membre gouvernement bi ak ak ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy njiitalu ICS benn la. Euh, daanaka daan daanaka dañ naan dañ leen lëkkaloo parce que comme ni ma la ko waxee président bi bi ñu ko defee sommation interpellative pour laaj ko ndax dafa représenter les actionnaires mu ne mosu ko représenter ICS moo ko coopté. pour muy dem di nekk présent ci assemblée générale waaw dama bëgg a indi sax lu gën a leer mooy ñoom jëlewuñ leen noonu ci feneen parce que ñi nekk ci groupement bi yëpp personnel ICS la ah, parce que comme ni ma la ko waxee ci njëlbeen ba groupement bi vocation am du woon pour jënd action ñoom dañ defaroon seen groupement tuddee ko groupement d'épargne et de crédit mhm. ku ci bokk soo soxlaa jënd dara te yore loolu teew groupement bi jëndal la ko nga koy rembourser donc groupement bi yorut xaalis xaalisu membre yi la yor mais nag autorité ICS yi ñoo utiliser groupement bi def ko mu mel ne moom moo leen di servir ëllëg pour ñu ne ñeneen ñi bokkul ci moom yëpp même ña fa bokk sax mhm. nax saayal nañ seen action loolu la demee léegi nag groupement bi li ci gën a yéeme mooy comme ni ma la ko waxee ba ñu koy sos maa ngi benn carte de membre bu wone ne mi ngi tuddoon groupement d'épargne et de crédit des ICS ñoom ñu soppali ko tuddal ko groupement d'épargne de crédit et d'investissement des ICS parce que bu nekkee groupement d'épargne et de crédit mënul jënd action mënul def portage action comme ni ñuy wax. mais bu fekkee ne yokk nañ ci investissement action investissement la mooy wane ne donc groupement bi mën naa jënd action mm-hmm. ci ñoom mais le problème encore mooy loolu sax mënul firndeel ne groupement bay jënd parce que comme ni ma la ko waxee membres yi ñoo jënd groupement bi jëndul ba ñuy fay itam check bi nekkul au nom du groupement ICS moo collecté xaalisu ñëpp ñu jënd def chèque gu ICS fay SFI am nañu itam référence su chèque yi ci daal gàttal bu ñu defee loolu ba pare bi ñu demee tribunal ñun ak suñu ay éléments yépp juge bi ne ñun duñu actionnaire. léegi waa kii waa SFE donte ñoom rompre nañ amatuñu dara lu leen lii ak ICS ndax yéen pour plus de preuves dem ngeen ngeen gis ñooñu noonu à ce dimbali leen tamit ñu bokk ci xeex bi indi. ñoom ICS daf leen signaloo benn acte benn accord de cession d'action au profit de g alors que note bi ñu def ak démarche yi ñu def waxuñ fenn ne dañoo war a jaay G6 action ma SFI SFI dafa jaar ci ICS parce que actionnaire ICS la direction ICS moo ñu jox note signée du DG ne dañuy jaay action et c'est fii wax modalité yi man mii par exemple di wax ak yéen ma jënd gisuma fenn fu ñu wax G6 kon bu nu demee ba lu mu yàgg yàgg yàgg ak lu ñu def loo G6 ça ne me te mënul far suma ay action ci yoon mais juge yi jàpp nañ ne ñun on n'est pas actionnaire G6 mooy actionnaire. ñoom waaw ñoom ci groupement la rek mi ngi mel ni nga nekk ci biir benn société. ngeen def benn daayira. kon société financière internationale. Mhm. dañu ñëw ne ñoom dañuy jaay seen action. ñu d' accord ne dañ koy jaay personnel bi exclusivement mhm. léegi ci biir nag. Mhm. ñu jaay ko personnel ba pare. g am na ay membres waaw groupement d'épargne et de crédit am na ay membres G6 jëndal ay membres am action ñoom 960 lañ personnel ICS la mais ñi jënd ñëpp 2057 la donc am na ñu bëri ñoo xam ne jaaruñ ci g mais à l'insu des autres direction bi moo dem signaloo accord de cession SFI G6 mu mel ne loolu moo leen jox sañ-sañ ñu ni G6 mooy actionnaire te ñeneen ñi duñu actionnaire xam hmm? nga tam doy na waar parce que quelle que soit stratégie yoo mën a def matière action bu ma jëndee action autorité société bi ñoo war a régulariser suma situation créel ma certificat d'action mais bu ñu ko defulee mënuñ ma ko opposer parce que du man may def loolu du man may créer certificat d'action ñoom ñoo ko war a créer ñoo ko war a bind seen livre suñ ko bindulee. amoon defaruñ ko exprès. du erreur du erreur parce que ñoom ñoo ko de exprès parce que ñoom seen problème mooy dàq tous les actionnaires. recapitaliser société bi jox ko ñeneen ñoo xamee ne. mais damay wax comme ba ngeen jëndee. Mhm. ba ngeen jëndee yéen personnel bi waroon ngeen am certificat d'action waa waa GCX tamit waroon nañ ko mën a am. non ñoom dañuy signer GCX benn accord de cession. Mhm. mu mel ne daanaka mooy seen certificat d'action. mais accord de cession boobu ñu ko signer ñun waxuñ ko ñun. te yéen signer wuñu dara. du erreur walaay du erreur parce que man boo ñëwee ne danga may jaay ma fay la nga defal ma reçu boo ma defalul certificat itam taxul nga bañ maa jaay parce que man déet mais kayit kayit laa yor parce que dañ ne en matière commerciale l'élément de preuve est simple jaay nga jënd naa mën naa prouver ne jënd naa parce que maa ngi ak suma bulletin de salaire bi ñu bind session d'action mm-hmm. mais kooku preuve la yow yaa ko émettre maa ngi ay pièces de caisse yoo xam ne OCS moo ko signé ñu jënd bind ci session d'action léegi boo defulee certificat bi du xame ne du ñoom ñoo ma koy opposé parce que li ñoo naan nul ne peut se prévaloir de sa turpitude mooy loolu yow nga def sa saay-saay ba pare daal di ma ko opposé loolu mënul prospérer man mii di wax ak yow defar naa ay certificat d'action bi sies fusionné ak ICS valeur action actionnaire yi changé man maa dem jëndi ay formulaire bind ko à la main ko pour tous les autres actionnaires mais pendant que dañu defuñ ko woon pendant deux trois ans defuñ loolu mais taxul woon ñoom ñu ñàkk seen action. léegi ñu bëgg nag nit ñi dégg ko xam ne réew mi am na ñu ne doole dëgg la waaye bu ci nit ñi jógee itam dana mën a sotti président bind nañ ko lettre. depuis le quinze septembre xaw amuñu benn tontu benn ñun nag ba léegi ñu ngi def yëfu citoyen parce que dañ naan dañuy doxal mbir mi jéem a jaar ci yoon waaye am na fu muy toll foo xamee ne nag xamatuñ ci dara. société bi ñi ñu ko jaay ñu ngi créer société boo xamee ne trente 31 décembre.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 jëfandikoo suñu ay ressource ni mu waree dama naan yàlla day desel dese lu ñu dara yëf yi ci ñun la des waaw. waa dernier moom mooy euh, dañ leen di gërëm yéen da ngeen nekk ci métier boo xam ne euh, jaamu ci yàlla yomb na mooy ci yàlla yit yomb na ñu leen di ñaanal ngeen nekk ci yoon wa euh, yàlla di leen di jënd bindal ngërëm dolli di ñaax sunu kuréel bi nga xamee ne mooy association des actionnaires ex employés ex employés ne leen sunu booloo nekk benn deux mille cinquante sept personnes sunu mànkoo fu nu waxee mën nañ leen dégg donc booloo war nañu laante biir jàppoo nekk benn xàccandoo dóorandoo ñu koy wax itam ci sénégalais yépp ñu leen di woo ñoom itam ñu seet ne suñu réew mi buñ ci jógee ak fulla ak fayda dootuñu soxla dara ndax lu ne mën nañ koo fajal suñu bopp yàlla daf ñoo bàyyilul dara yàlla lépp lañu nàkkal ñu ñoo bañ a lekk waaw nañu wëlbatiku nag daldi gën a am pas-pas hmm? jublu ci yi nga xamee ne moom la yàlla xéewalal jëriñoo ko mbëkk meeg yooyu yëpp xëy na mën na sax mu ñu far ko ndax loolu ci biir ay kàddoom moom Ndiogou wàkku Diouf mu ngi xamle ni dañu leen a nax waaye itam mu ngi ñaax àttekat yi ak njiitu réew mi di Macky Sall ngir ñu taxawu leen bu baax ci problème bi ba ñu mën a jotaat seenub action